mën naa la limal ba ci sama kilifa juróom-ñaari at laa ko dawalal alaaji baara sëñ afiya moom sëñ sëñ fàllu sëñ fiidu bu sëñ sëriñ tubaa Mauritanie ñeenti at 2004 laa yor ko sëñ ba sëñ saaliw ni muy wàcce yàlla na suñu borom feewal ñu ko su dañ ma joxaatee ndigal ma ñibbisi kon ñun yoon bi kenn duñu ko jàngal kenn duñu ko jàngal dañ koo tarbiya dañoo tarbiya yoon bi ñu tarbiya ñu ba pare yàlla defoon ñu xam àdduna bu baax a baax def lee bancs jaar ci saayir kon ñun li ñuy wax dañ koo xam Cheikh Abdou amul benn benn benn euh, kii bu conseil boo xamante ne war na koo mën a jox kii que ce soit ci dëkk bi ndax benn man gis naa ko muy toog ak Cheikh Bass si toog Cheikh Bass toog mu ko yóbbu ay moto pompe du toog ci suuf te yow ay ay ay magu Cheikh bas ngay toog ak ñoom ci kaw mais comme jàpp nga ne. mais Birame Dia man nag dama gëm nit. man li ma gëm damay bañ ñu sori rek non man li may wax moom en tant que politicien bi taxaw ne ñun dafa wax ne gone Ousmane Sonko yu nekk ci dëkk bi ñoom ñoo ko yàqal. ñoo yàqal kan ñoo Sonko. dem na ba mu ne usman Sonko su fi ñëw da ko doon woo. man Ousmane Sonko mosuta ànd ak moom mosuta ànd ak moom ci kanamu benn ci kanamu benn kilifa mosuta am Ousmane Sonko li mu fi ñëw ci kanamu suñ Muntaxa ak suñ Cheikh Saliou ak kilifa yëpp amul benn boo xamante ne toogul ma toog ñun sax ñoo koy coordonné à l'avance muy ñëw balaa muy ñëw kon su taxawee ni ñun dañ koy yàqal gone yi dañ koy yàq rawatina suñ seex Thioro damay wax ne loolu Cheikh Abdou ñun toog nañ saalam maag moom ba tàyyi ci élection législative yi cër la ñu jox cër la ñu mosoon a jox ñu jox ko cër ba ci campagne bi daf ñu doon woo di ñu solliciter di ñu solliciter ñun ñu koy ñu ñu siy dox luñ ci war a dox yàlla dogal campagne bi campagne nañu ba mu ba mu jeex Cheikh Abdou joxuñu benn cinq francs joxuñu ko loolu dañ ciy sant yàlla dañ ciy sant yàlla su nekkee tamit nee na suñu <laughs> Cheikh Thioro moo ko garanti banque ku xam banque nu muy doxee kan moo lay ba garanti banque quarante millions loolu xam nga yooyu yëpp dafa doy waar xam nga yooyu yëpp dafa doy waar maanaam li am solo ba am solo. da nga Birame da nga jàpp ne Cheikh bi da leen doon utiliser pour doon député. dafa sukkandiku ci Pastef rek pour mën a jàll man moom du wax daf ñu utiliser. parce que dafa jaare ci yéen. non non non parce que benn Cheikh Abdou ci coalition wallu la demee. Mhm. wallu ak yeewi am intercoalition. waaye wallu maanaam ñoom proposé Cheikh Abdou kon ñun loolu ñun loolu su yoon kon ñun ci. daf ko proposé waaye bi ko proposé aussi ñun nag am nañu droit. ñi nga xamante ne moom la bëgg a doxalee mbir mi ñun ñu ne déedéet ñun nii lañ koy doxalee selon ñun ni ñu bëggee woon doxalee suñu campagne. loo loo jàpp ne kon moo war a tax lii ngay wax ni mooy attaque mu teg ko seen kaw mu koy def. damaa jàpp damaa jàpp ne rek ne. Euh, parce que des fois soo xool ay waxam des fois da ngay xool su nekkee ne dafa mel ni Yewwi wala Pastef dafa nekk ci benn côté point euh, point fort ci ci ci ci mbartal bi ci kaw. mu commencé di kii ah Ousmane sama lii la ñii nangam ak nangam kii su nekkee ne Ousmane dem na ci benn côté boo xam point de faiblesse la ñee ñoo xaw a kii mu ñëw ah, nangam chargé man na dama jàpp ne nit ko am tamit tey nii ngay def euh, ci politique bi nii ngay def kon <laughs> loolu rek laa jàpp. ne kon taxawaay bu dëgër lay ut rek fu mu ko mën a amee. voilà taxawaay bu dëgër lay kii fu ko mën a su nekkee wallu mu dem su nekkee yeewi kii mu jéem a xam nga. mais su nekkee yéen ñi ngeen nekkee candidat noonu nekkee candidat de. loolu dañ ko koy nangul am na droit parce que tamit su nekkee ne charte yi li mu wax maanaam kii na ko remplir na ko kon amul problème na def mais problème bi mooy ñun moom il faut ñu bàyyi ndax ñun mosoo dégg ñun ñuy dem ci benn di wax ci moom lu dul moom daf ñoo wax ñun ñu riposté kese. moom kon moom na bàyyi di ñu di ñu wax ndax tey su taxawee. di wax ci koo xamante ne wax na ne sëñ Muntaxa dafa bëgg dafa dafa am lu mu waxoon ci bu diggante euh, waa yeew yi nee dama leen amal bor euh, loolu su nekkee ne ko loolu la wax bu bëgg ko attaqué bëgg see bëgg ñëw bëgg ñëw bëgg bëgg a jaaraat si ñun loolu duñ ko nank duñ ko d'accord Mhm. dañ ko d'accord mi mi ngi doon sàkku sax ñu teggi article bi wax ci constitution bi pour nga doon kan euh, président Sénégal faaw nga mën a lire français bind ko xanaa loolu war ngeen war ngeen a jàppale en tant que yow doomu daara non man moom man moom man duma ko ci duma ko ci mën a jàppale parce que loolu tamit vraiment amul loo xamante ne lu ci banaal la ndax tamit yàlla dafa dogal nekkuñu réew moo xamante ne li ma gëm gëm naa na nga dooleel sa say langues nationaux waaw ah, say langue kii nga nga nga yi nga nga dooleel leen bañ ci am complexe mais nag langue étrangère yi nag moom kenn rawatina langue bi nga xamante ne moom say say article say constitution say say loi say lépp ci loolu lañ koy bindee kon nag loolu ma d'accord ma kon ñu ne da koy dañ koy dañ koy dañ koy génnee man loolu je suis pas mhm. vraiment. Mhm. Bio ànd ak yow ci waxtaan bi mënoon na gën a yaatu mais daa mel ne li ci ñu cëraloon ci waxtu mat na euh, ñu bàyyi la nga joxe sa dernier mot ñu mën a yëkkati jotaay bi. waaw sama dernier mot daal xanaa di euh, di ñaan di ñaan ci barke xamide yi rek euh, jàmm jàmm am ci réew mi ndax ñun yàlla su dogalee ñuy ay jeunes tey ñu gis jeunes yu bari di dugg ci gaal bi di dem. ñii di jaar di di jaay seeni place di ci dem bitim réew te bitim réew loolu ñu fa am yépp ñoom ñoo ko xeexal seen bopp ñi ñoo def révolution jël seen doole ak seen xel ak seen lépp consacré ko seen biir dëkk ba tax seen dëkk ñun ñu jël ay ay dix yu baree bare bare ñi ay tey ambassade États-Unis di nga fay cent pour pour laaj visa rek ñooñu liñ ko li leen ko may mooy seen waa réew ñoo taxaw xeex ko kon li may wax mooy réew mi na jàmm am ñi nga xamante ne nag jàmm seen loxo la ne ñi la gouvernement ndax ñoom ñoo yore doole lépp ñoo yore lépp ñoo yore suñu budget sept mille milliards je crois hmm? yor lépp kon ñoom ñoo waroon a ñoom ñoo war a indi jàmm ñoom ñoo yore arme bi ñoo yore police ñoo yore justice bi kon lépp war nañoo mën a xoolaat la ñuy doxalee ba jàmm am ba nit ñi seen seen seen xel mën a dal ci réew mi ñu fexe liggéey réew mi leneen li may li may lancé mooy di ko lancé aussi waa waa waa dëkk bi politiciens yi ne ci dëkk bi nañu bàyyi yàq der bi ñuy def nañu bàyyi yàq der bi ñuy def tàmbale ko ci Moustapha Messere gis nañ ko wax yu ñaaw képp la fi nekkee ci politique ci dëkk bi te lépp fii la fi lafi fi la fi tuyoo ay nit dagg tuyoo ngir di sauver seeni kër mu génn jiñ ko ay naan ay terroriste dañoo waaw moo tax man ma may wax di lancer appel ci ñoom <laughs> nañu bàyyi politique bu salte boobu ñun ay taalibe lañ ñun dañoo bokk dëkk bi bokk Serigne Touba laata politique bi di ñëw kon lépp na war naa rafet ñu bàyyi di jiiñ lu mel ni terroriste nga koy jiiñ ñoo xamante tey su nekkul woon yàllaa ci def sutura mais tey su nekkul woon ne sëñ Muntaxa ay njabootam ñoo xamante ne euh, taalibeem bu mag boo xam ànd naa moom depuis bi mu jógee ni ko sëñ Muntaxa waxee depuis bu mu jógee ba léegi la ànd ak moom xam ay njabootam yar njabootam def benn erreur boobu moom mu jël ko diaboliser ko ba ba ba ba traité de terroriste traité leen de terroriste kon su nekkoon ne yàlla dogal woon ne tey su nekkoon ne benn taalibe bu bu bu benn benn kilifa bu xaw a bu amul benn tur ñooñu seen i taalibe lañ kon kooku ñooñu si kaso ba lañu lañu la ñuy kii kon kon na bàyyi loolu loolu nañ ko bàyyi loolu nag laay lancé appel boobu te du ma ko lancé ñoom mais kilifa yi ne ci dëkk bi yor yor dëkk bi nekkal di di di nga xamante ñi nga xam ñooy rendre compte sëñ Muntaxa nañu moytu nañu moytu genre nit yooyu nañu moytu nañ leen wax dëgg nañ leen wax dëkk bi si bi si tàmbalee ci ci ci ci Baay Faal yi ci kilifa Baay Faal yi jëwriñ sëñ Fallou Fall moom sëñ Modou Aminta Fall ak Cheikh Bass ñooñu maa ngi leen di wax nañu nañu nañu nañu wax ak ñooñu di nga xamante ne ñoo ngi yàq deru waa dëkk bi ba di leen ci ay yoo xamante ne lu lu lu mën lu war a mën a ñàkk la loolu laay wax di sant bu baax a baax a baax di ñaanal nag président Ousmane ko fee mu nekk yàlla na ko suñu borom yëkkati ci barke xas bi sëñ Tuubaa yëpp yàlla na ko suñu borom yëkkati te indiwaat ko si suñu biir ñu ànd xeex bi. ba deux mille vingt quatre jël réew mi liggéey ko ba ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Benno Bokk Yaakaar waa APR ak ñoom ñëpp gis ne li ñu doon xeex yëpp c'était pour dëkk bi mën a jag ñu ñëpp ñu bokk ko loolu lay ñaan jërë ngeen jëf.